titre. <laughs> J'ai même voilà. pas écouté. <laughs> mu ngi lay mu ngi lay mu ngi lay yóbbu de mm-hmm. donc Bill moom tey moom mu ngi ci biir biir conférence bi xam naa ne du du ñàkk rek bi ñuy amalaat beneen COP xam naa ni moom la ñu yóbbu mu daal ci gën a gën cee dugg daal ndax mu ngi ci biir déjà donc comme ni ñu ko doon waxee tout à l'heure tey on va parler d'environnement de climat particulièrement ah, pour loolu dinañ dalal suñu bon dañuy dalal suñu invité ah mi ñu rejoindre tout à l'heure di euh, madame Paul Kadia Traoré nekk ab journaliste nekk tam koo xam ne rek day yëngu bu baax a baax ci wàllum environnement à travers des émissions donc la nga dalal suñu gan. bien sûr Fatou tey ñu ngi dalal ki nekk Paulé Kaya Traoré journaliste mais aussi nga xam ne def émission ci wàllum environnement Paulé Kaya ñu ngi lay wax bienvenue suñu matinal ah bienvenue bon ma je considère ici comme ma maison parce que da ngeen ma accueillir déjà pour une grande retardataire <laughs> bon je me dis aussi <laughs> bienvenue à tout le monde et merci beaucoup franchement je suis très contente d'être ici partager un petit moment avec vous sur nos labels bëgg nit yi xam ko xam li ngeen di liggéey et tout ça je pense que vous êtes déjà dedans def liggéey bu rafet kontaan rek di ñëw plateau bi. bien merci alors sànq sa ñu doon waxtaan suñu biir si wàllum changement climatique dérèglement climatique cadre yooyu tout le temps muy jub mais est-ce que mu ngeen ñu leeral loolu lan la tekki exactement. en fait cadre yooyu fii Sénégal pour ñu leeral ko dafay xaw a difficile parce que tout le temps man dama koy wax tout le temps ay termes yu de des choses. terre à terre yi nga xamante ne nit yi di koy dund xam nañ ne lii mu ngi seen euh, biir mu ngi yàq lu bëri mais su leen joxee yenn termes yi dañuy am problème donc dérèglement climatique mën nañ ko jàppee loo xamante ne sooy xool du lu bees parce que fii Sénégal am na on l'a dit dans les années 70 yooyu amoon na problème de désertification comprendre ba nga xamante ne nit yi amoon nañu yenn problème boobu indi woon exode rural et tout ça léegi nag fu mu toll dafa gën a accentuer dafa gën a accentué parce que les pays riches dañuy sonal di utiliser yenn euh, énergie fossile yi di utiliser yenn euh, kii yu bon yoo xamante ne day ñëw di gën a yàq suñu atmosphère ñun ñi nga xamante ne on est des pays pauvres on n'a pas de moyens mais affaire comme si jaw bi lay jaar day ñëw fekk ñu fii mooy indi yenn problème yi ñu koy gis ci inondation yi di ko gis ci avancée de la mer ak yeneen ak yeneen. ñi nga xamante ni ñooy euh, des dirigeants du du continent ku ci mel ni njiitu réew mi Macky Sall di wax ni euh, nañu jug gaaw balaa lambaay di ñaaw manaam pour sauver la planète mais gis nañu aussi euh, Ali Bongo Ondimba di président Gabon sàkku ñu daal di verser financement yi nga xamante ni moom la pays riche yi waa jox réew yi nga xamante ni mm. dañoo néew doole. mais euh, ci COP 27 gis nañu chaque année COP day am je ne sais pas si je me trompe chaque année chaque am. Uh-huh. Uh-huh. mais est-ce que nekkuñ ci statu quo muy am jusqu'à présent pas de dérèglement climatique et euh, voilà dafa mel ni génnaguñu ci li nga xam te mooy bout du tunnel. waaw dafa dafa xaw a doy waar ni ñu ko gisee noonu ni ñu ko ñu gisee parce que COP c'est depuis 92 92 ba tey ñu ngi raam. mais dañu dem ba euh, en 2015 maanaam COP de Paris mm. si la initiative yu bëri nag daal di mettre euh, nekk en place parce que si li ñu jël décision yu bëri mais décision yooyu comme tu le dis ah dafa nekk rek ay décision en l'air nii mm. parce que jusqu'à présent rien n'a été réalisé sinon très peu euh, parce que si COP Paris boobu li ngay wax ni financement yi sa lañ ko waxee woon ne pays riches yi dañuy jox lu mat lu toll si 100 000 milliards de dollars ñu koy jox pays yi nga xamante ne c' est les pays les moins les pays pauvres. Hmm. pays pauvres yooyu di ñu dem nag ba si biir sax pays pauvres yi dañu leen a classé xam nga parce que ñu ngi bokk les pays <laughs> les euh, moins développés. parce que parce que que su ñu waxee pays pauvres rek ñu jàpp si Afrique Afrique si biir Afrique di ñoo tanante. comme xam ñu doon woowee pays émergent de wala émergence non non <laughs> émergence des na parce que soo xoolee ay pays yu mel ni ay Nigéria. ay mm-hmm. pays yu mel ni ay Afrique du Sud ay même Ghana. c'est des pays yoo xamante ne ñoom ñoo ñu tane. Hmm. comme xam nga même Congo boobu ngay wax. Hmm. ñoom avec seen forêt bee ay yooyu yëpp. di dañuy Gabon plutôt muy Gabon di Congo côté hmm. boobu yëpp dañuy am ay fore yu mag yi nga xamante ne ñoom dañuy am ay CO2 affaire yooyu comme xam nga donc di ko di ñu tanante seeni biir. c'est vrai qu'on parle suñu demee l'Afrique va parler d'une seule et même voix mais si biir dafa am ay groupe yi nga xamante ne pour bu nekk yaay défendre. sa sa sa zone mhm. donc ça se passe ainsi mais problème bi mooy c'est cent milliards de dollars là c'est un problème réel parce que jusqu'à présent kenn amu si li nga si war a jot non seulement suñ ko tegee nii nii nii li ngay laaj yëpp pour nga war si jot as tuut dafa metti ñu ne déetawaay li ñu si mujjee am sax mooy par exemple su demee ba war a ñëw ñu war ko jox par exemple des banques comme la banque agricole wala yooyu mais loolu ñi nga xamante ne ay baadoo la ñu amuñu doole surtout les femmes et tout ça nan la ñuy def ba jot si alors que ça doit ça devait subvention donc loolu yëpp c' est des problèmes yoo xamante ne je pense que bii yoon chef de l' état yi suñu demee den si wax mais man du ma xaw a xaw a métti tuuti mooy démb bu ma gisee Emmanuel Macron mm. sa façon de prendre les choses ne m'a pas bon je sais pas entre guillemets ça m'a pas plu parce que quand il dit que dañuy war a euh, pousser mm. les pays riches non européens à euh, s'acquitter à, à financer tout ça day am problème parce que ñun Afrique soo xoolee Afrique de l'Ouest yi fiy wàcc yëpp di polluer seeni vie di polluer seeni àdduna mm. mais ça vient pour la plupart des temps dans les sens pays européens seen industrie yi fi nekk seen seen industrie yi mais yeneen oto yoo xamante ne ñoom dogalutuñ ko ñu indi ko fii xam nga wax en plus de ça des fois ñu gis fi ay matériel électronique électronique yoo xamante ne mais dafa yàqu ñu indi ko fii di ko jaay pour le voir ça un si koñ yi ñuy jaay ay affaires yoo xamante ne problème la lay gën a indil que njëriñ. est-ce que ci ci ndaje aussi euh, voix de l'Afrique dina porter parce que gis nañu ñoom Macky Sall di yëkkati kàddu ñoom Ali Bongo ak ñeneen ak ñeneen mais est-ce que mm. après bu conférence yi jeexee duñ ko balaa duñ ko fàtte ku nekk continuer woon ci ci ci li nga nekk. bon tu sais en général les les les grandes conférence là man li ma si gis personnellement yi ma jot a fekkee mooy dama koy wax souvent sama confrère nee naa leen c'est de rencontre. Hmm. de man loolu laa gën gis parce que ba ma demee COP euh, en 2021 nee naa ko dem naa ma dem si beneen pays mais pays africain bu mel ni Burkina ma laaj ministre bi ne ko yéen COP bi ban njëriñ la la amal mu ne man de franchement je vois que lii ñuy proposé nii. des fois dañu ñëw suñu dëkk yi dañu ko propose donc on dépense plus da ngay def réservation hôtel fay fay avion indi sa personnel et tout ça mais gisuñu fi ko euh, proposition bu concret mais néanmoins nag euh, la voix africaine elle se fait entendre parce que ñun rek Sénégal am nañu ay experts yoo xamante ne ñu ngi ci biir négociation yi ñu ngi si biir négociation yi di ñu fex seen ay morom ainsi de suite ainsi te yaakaar naa ñu suñu ba si biir Euh, ñun suñu bopp ñun africains yi suñu dajaloo dañuy am solution parce que y' a pas longtemps de cela def nañ fi conférence des ministres de environnement. Mhm. mais bañ fa defee ñoom dañu taxaw ñu ne carrément parce que COP bii nii nii nii dañu ne ce sera la COP de la justice perte et préjudice yi dañu bëgg vraiment fu mu toll nii mu am ay solution yu concret ministres yi nag lu ma gën a neex ci conférence bi nee nañu carrément il vont pas se laisser dicter un loi parce que dinaa nangam nangam lii ngeen war a def dootuñu ko déggal kenn. Parce que si on nous parle d'énergie, nous, on est plus apte à donner des solutions énergétiques que ñoom donc fu mu toll nii c'est-à-dire que su ngeen xoolee bu baax depuis <laughs> événement Covid ba tey ku nekk da nga jéngu ku nekk da nga xam ne am na loo mënal sa bopp. donc on est dans cette lancée là et je pense que su fekkee ne loolu nu ñu fi waxee nii si Dakar loolu la ñu dem bu foofu ci COP bi. Hmm. dina am début de solution. léegi ñun euh, ci biir ci biir Sénégal environnementaliste yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. ñi nga xamante ni voilà ay association lañ dañuy euh, dem ci xeex lépp loo xamante ni rek àll aar alam bi la lan moo war a nekk seen taxawaay parce que bu fekkee financement et tout mën nañ ko xaar mais lan moo war a nekk seen taxawaay en interne si biir dëkk bi pour mën vraiment mhm. jël en compte aspect yi nga xamante ni peut-être financement du ko mën ci suñu climat ñun mhm. seen taxawaay boobu nag ni nga ma laaj nii man à chaque fois loolu leen laaj parce que constat bi tamit il ñu wax ko on est là on est on africain ñun suñu bopp dañuy polluer mais pollution boobu noonu noonu mais di ñu war a toog ñu wut ñuy wax ak population bi ay wax comme je le disais au début ay wax yu terre à terre xam par exemple man ba may génn sama kër maa ngi gis kuy bale mais c'est des choses yi xamante nit dañ ko doon jàng école ay éducation civique sooy balee da ngay wis mm. ah euh, poussière bi bañ a jug et tout mm. ça mais c'est des choses terre à yoo xam ne yaa ngi bale peut-être yaa ngi setal mais yaa ngi jox nit ki benn pollution boo xam ne yoo xamoo ko mën na ko indil feebar ainsi de suite ainsi de suite donc man li ma bëgg mooy et puis li ma gën a metti mooy on n'a pas une société civile forte parce que tey jii soo xoolee la bande des filao mais indi woon na fi coow wax ju bëri mais fan la mujjee mais bëggee <laughs> yooyu mais ñu ngi détruire et puis bande filao c'est-à-dire que y a rien loo xamante ne di nga ko def par hasard bande filao yi di ñu toog xalaat ne fii kat filao yi fii ñu nit yi fi ñu nar a nekk nii c'est des dunes dunes de saabu mouvantes lan moo koy lan moo koy téye lan moo koy fixé ñu toog xalaat xalaat xalaat indi façon bu ne ba filao yooyu la ñu gis ne moom non seulement mun na fixé parce que filao léppam day fixé su daanoo kii noonu day fixé sol bi euh, doom yi muy am noonu day fixé xol bi day sol bi moom si boppam day fixé sol bi léegi ñu def ko foofu pour sauver une population avancé géej bi ak yooyu yëpp fu mu toll nii yooyu yëpp ñu teg ko nele mais environnementalistes yi nga xamante ne ñoo war a défendre ces causes là ñoom fan la ñu nekk ñu génn di wax a nit yi c'est pas affaire bi su dara xewee ngay nekk su un plateau de télé naan nangama naan ça se passe sur le terrain yéen ñi tey jii ku si xam benn affaire ñu jàngal la ko wala nga xam ko mais quand nga gis kenn ku dul def noonu danga ko naan ah nga baal ma de mais nangam ak nangam faut que ça se passe ainsi il faut que ça soit des choses terre a terre ku nekk jouer vraiment ton rôle. man euh, mais mais mais c'est ça c'est ça. alors que parce que y a aussi mhm. l'usine de dessalement bi nga xamante ni mhm. moo nekk ci ci Mermoz. Mhm. ba suscité woon aussi euh, polémique. c'est ça. Ah, ah foofu sax boobu c'est parmi les les les dernières usines on peut dire. mais tey jii soo demee à Yaraax par exemple. nga dem nga dem euh, sur la baie de la là parce que quand on parle de la baie de Hann c'est de Port à Thiaroye donc euh, à Mbao plutôt mais foofu noonu noonu dafa am ay usines yoo xamante ne dëgg la am na ñoo xamante ne population moo leen fekk mais usine dafa war a am bu mu war a respecter une norme environnementale à respecter waaye soo jëlee say eaux use eau yi nga xam dafa am huile ñuul ku kenn xamul lu muy noonu du ko sotti géej directement loolu c'est des problème donc ñi fa dëkk foofu dañuy am ay problème ñi wax loolu nga jëlaat euh, kii de euh, salinisation indi ko fii nga xamante ne population ñoo fi dëkk depuis benn lettre mais tout ça c' est des problèmes mais yooyu yëpp nag su amee si dëkk ñi nga am ñoo xamante ne ñoo taxaw ne ñoom ñooy mbubbu woon ne ñoom c' est des environnementalistes effectivement c' est des environnementalistes jàng nag fu ñu war a jàngee seen morom yi yóbbuwul ñu leen dara donc am xam-xam macha allah. man mii su ma leen invité sama émission dañuy wax yoo xamante ne mais ci di nga lay émouvoir nga xam ne ñii am nañ lu ñu xam mais loolu nañ ko partagé. partagé bi di plateau bi dañ leen impliqué wul ci yenn xam nga man yooyu laay ba a dégg di leen impliqué wul du wax comprendre nga parce que fii euh, quand je parle des en je parle des universitaires ñooñu c'est des gens libres ñi nga xamante ne vraiment. di ñu war a génn ci population waxuñu waaye impliqué yu ñu impliqué mais nañu wax ba ñu xam ne ñii kat. waxoon lañ fi nangam c'est important su dara dee am da naan da si wax a wax a wax même suñu la dégluwul soo liggéey dee a ah pourtant kii kat lancé woon na alerte bi. c'est important même ci wàllum COP lay ñëwaat tuuti mm-hmm. Fatou gis nañu amoon na COP yi jàll yéen añ ci tëbli li nga xam ne mel ni Donald Trump mooy mm-hmm. mu nekk président mm-hmm. génn na sax moom naa gëmmu li ngay xam ne mooy changement climatique nit ñi ñoo ko inventé et cetera est-ce que tey chef d'État yooyu nga xam ne wala dëkk yi nga xam ne ñooy gën a polluer te malheureusement mm-hmm. Afrique mooy subir comme comme comme d'habitude mm-hmm. ñoom aussi respecté nag accord yi mais aussi est-ce que du baax a baax concrétiser nañ seen biir xel nangu ne changement climatique am na et que war nañ xoolaat seen système parce que mm-hmm. démb sur Twitter avant COP bi di commencer am nañu dugg daal di naan chef de yi ñooy dugg seen avion dem uh-huh. Égypte di uh-huh. expliquer ay nit naka ngeen war a bàyyee oto ak avion utiliser vélo donc aussi am na benn paradoxe boo xam ne tamit am na c'est vrai loolu loolu loolu moom c'est c'est la réalité mais mais benn affaire dafa am xam nga rek euh, loo gis rek day am ñoo xamante ne ñoom tamit comme ñuy toogee nii jéem a sensibiliser ñoom tamit dañuy jéem a sensibiliser mais dans le sens contraire parce que loolu moo leen arrangé peut-être que nekk nañu ay patron yi nga xamante ne ay industriels lañu et tout sax mais ñooñu soo leen bëggee ne dañu tëj seen industrie wala nangam a nangam mais dinañ jéem a xool ay études contraires yi nga xamante ne day wane ne lii xam nga nit yi ñoo ko créé wala ñoo si bëgg a nangam ak nangam ainsi de suite c'est juste ça. parce que euh, Donald Trump su fekkee ne moom da si génnoon fu mu toll nii yóbbu na dugaat na si parce que xam na ne loolu mënul nekk. xam nga ni donc il faut que fu mu toll nii genre détail yooyu nit yi bàyyi ko mais comme tu la dit ah. man tiit boobu tam noonu la ma noonu la ma <laughs> effectivement c' est la réalité parce que dem foofu di bëgg expliquer ay affaire alors que yéen ay privé moo leen indi et tout ça. mais vraiment ñoom mënoon nañu jël parce que mënuñu bañ dem. mais mënoon nañu jël ay avion <laughs> comme tout mu xaw tane ñu xaw wàññi tuuti sax si pollution bi. je pense que loolu mooy tane voilà suscité euh, grosse polémique <laughs> parce que souvent c' paradoxal. c' paradoxal mais bon ah, en fii par exemple Sénégal ñu ngi jéem a jéngu si lool parce que tey jii terre bi suñ ko defee pour lutter contre la pollution la. Euh, doguma la sama Sénégal boobu laa bëgg ñëw pour lutter contre la pollution. gis nañu tey am na ay oto xam ne yu mel nii car rapide yenn yi nga xam ne ñoom dañuy polluer lu bëri quand même parce que am na ay ay euh, accords yu ñu signé ngir wàññi loolu est-ce que vous pensez que tey. Mm-hmm. ñooñu aussi ñu contribuer ci pollution bi nga xam ne comme ni ko Aliou doon waxee tantôt par rapport à destruction couche de couche d'ozone. Mm-hmm. mais aussi en utilisation yenn sachets yi parce que tey gis nañ ay mm-hmm. marques yu bëri yi nga xam ne ñoom dañuy recycler léegi pour di construire defaraat yenn yi dafay gis Sénégal ba tey da ngay dox ci mbedd gis ni ki sànni mbuusu ndoxam et cetera alors naka la amee conséquence par mais y a beaucoup de conséquences parce que xam nga Sénégal euh, man li ma jaaxal Sénégal mooy dëkk boo xamante ne du ñu bëri ay loi et puis euh, kii yu bëri convention yu bëri dañ ko ratifié mais kenn respecte dara rien là. son application pose problème. merci son application pose problème parce que sachet yi nga mujjee wax sachet yi mais am na loi buy interdire euh, l'utilisation des sachets. mais dafa mel ni ba ñu voté loi bi si la sachet yi gën a ñëw effectivement façon bu ne nga si gis donc c'est des choses yoo xamante ne c'est donc mais problème mooy beneen affaire sooy teree dara da teg dara da ngay teg dara ba pare nga ne population yi kat lii ba ñu miin ko nga doog a rocc mais indi woo solution alternative mooy indi yi car rapide c'est des moyens de transport ah moyens de transport yoo xamante ne depuis avant ñu judd ñun ak seeni ñoom maam mi ñu fi woon fu mu toll nii ils ont dit que avec le projet du BRT ba bu BRT commencé donc parce que BRT yooyu c'est pour atténuer aussi euh, la pollution donc yooyu itam dina wàññeeku wala dina war a mun a daj bon attendons de voir si ça va être une réalité. espérons alam ci mën a wax euh, bëri na. Mhm. mais aussi journaliste. Mhm. un confrère jamono ji euh, nekk ci li nga xamante ni mooy les liens de la détention mhm. en tant que journaliste ban gis-gis ma si am. di ko di ko naqarul rek di ko naqarul parce que des fois ça te fait peur parce que su fekkee ne da bëgg a nekk journaliste d' investigation ah ñu ñu ne la yow. am na yoo xamante ne waroo koo wax wala soo ko waxee yoon da lay tënk day xaw a metti parce que kon day mel ni dëkk bi suñu liberté de la press boobu daf ko bu wax lak la parce que Macky Sall maa koy seetaan rek ñëpp on a partage on la partage mu naan fii benn journaliste duñ ah que di nga respecté liberté de la presse lii mu def nii wonewu ko parce que vraiment quelqu'un qui fait des investigations il le fait pour le pays parce que pays bi dafa toll foo xamante ne ñun ñëpp mënuñu rek nekk ay journaliste généraliste nii waa il faut que des fois ñuy dem di xóotal di def ay surtout nga nag nga yàgg ci métier bi. tu as besoin de ça nit ñi dañu bëgg a gis nga fëlee feneen. loo on peut pas tous faire la même chose. Mm. vraiment maa ngi koy naqarlu bu baax day yaakaar ne xam naa dina génn su ba. Pape Alé Niang comme ni nga ko waxee léegi voilà faatu nekk ci li nga xamante ni mooy lieu de la détention depuis euh, dimanche. Mm. Euh, voilà jamono ji nag euh, mu ci garde à vue ñuy toog di xaar. Mm. fu muy di comme ni ko waxee di sàkku ñu daal di koy bàyyi parce que c'est un confrère. bi moo ñu moo ñu devant bu euh, yëpp parce que ñun moom xam nga fu ñu daje rek dañuy mm-hmm. duggee gën a la ci <laughs> beneen aspect dama lay nga tàggoo en tout cas vraiment si invitation bi euh, kontaan ci seen plateau comme ni mu ko waxee woon di bi rek nekk na plateau bu am solo li ngeen fiy waxtaan nit ñi ñu ngi koy jëriñoo te vraiment c'est ça ah, man dama bëgg ku may jàppale si alam bi ñëpp nañu jàpp si alam di si wax ku nekk di si béy waaram <laughs> jërëjëf voilà merci beaucoup Wille donc Fatou euh, merci à toi merci à Ali Saliou merci aussi euh, ki nekk Paul Kaya Traoré nekk journaliste mais aussi productrice d'émission sur l'environnement merci si leeral yi nga xam ne indi nañu ko ci wàllum alam gi ko ne ko Fatou di waxee merci aussi képp ko xam ne ñoo seetaan suñu Label TV nekk ci xolu Sénégal bien merci à vous tous. bien merci à toi euh, di remercier encore une fois sunu invité nekk aussi une consoeur. di Paul Kadia Traoré waxtaan wi am na solo alam bi aussi am na solo kon na ci ñëpp jàpp mbokk yi ñoo woon mbégte teew fi depuis 8 heures ba tey di leen jox dig daje ëllëg bu soobee suñu borom ñeen doon jàmm voilà merci Aliou merci Willy merci à euh, madame donc euh, Paul Kadia Traoré ci disponibilité bi ak euh, itam voilà leeral yi nga xamante ni rek jot nga koo leeral suñuy téléspectateur et comme ni ma ko waxee dinañ la dalalaataan gën a yaatal bu baax a baax comme ni nga ko waxee environnement ñun ñoo ko bokk donc ci nekk mën na ci def wàllam en attendant ñuy am yeneen solution yu gën a pratique yu gën a mag donc remercier téléspectateurs yi àndoon ak ñun depuis 8 heures ci suñu émission suñu matinale ci suñu Label TV donc dig daje demee incha allah ci beneen matinale nationale yeneen invité yeneen thèmes d'ici là portez-vous très bien et restez connectés au programme de sunu label TV merci beaucoup.